الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما محمد رسول الله من سنني خير خديم المصطفى فإنني أخديم بما اصطفى من سنني خير خديم المصطفى فإنني أقدم بما اصطفاه الذي كخدمتي بدا فخرها الدلال والإدلال ينخاد لي منه بالحلال مدعته قبل دال برولي مدن وناها مثلي كل ولي مدعته مدحا لدى ما ينباه ما أيوبي وكفاني زنبا مدعت عند أناس قلوى مدى كفاني الإداء والبلوى مني إلي خدمة قد لازمت روضة إلى الخيام عزمت radiyaani sibto jilaani alay ridwaanul mubidul jaani radiyaani sibto abul hasan alay ridwaanu yuxallidul hasan radiyaani alay ridwaanul mubidul jaani radiya عني سبت تيجاني علي رضوان المبيد الجاني ردياني خلفاء الأربعة خسردا مخربين المتبع من لم يكن أني يرضى فالكريم ردي عني يردا ليس يريم جزى الإله مستا خير الجزاء كما تقبل ووهدا أنجزا صلاة من كرم يلخاني على الذي دون المغال خاني daaru am ngeen ngëneel daaru saam am ngeen ngëneel ku sopp sëriñ Masamba Diop saam ku sopp sëriñ Masamba Diop saam ay sëriñ Moodu Masamba ngëneelu yàlla la na ñëpp jóg nu màggal sëriñ Masamba Jóob Saam bàyyi sëriñ Moodu Masamba bàyyi sëriñ Basiiru Jóob ana soppey sëriñ Moodu Masamba sëriñ Masamba Jóob Saam Bamba ko noon demal Daaru Saam nekk ma ma ñëw Seex Masamba dem Daaru Saam Seex Bamba ñëw xéewal yi baawaan ku jant bi man Seex Masamba Jóob saa mooma yéem lu jant bi tiim war naa sant borom daaru def le nii nu màggal Sëriñ Masamba Jóob saam ku jant bi tiim ku jant bi tiim man Sëriñ Masamba Jóob saam mooma yéem lu jant bi tiim war naa Jóob saam ku jant bi yéeteem moom Serigne Massamba Booma yéem lu jant bi yéeteem wala sant moom. aw a sant ko war na Seex Masamba du maasum kuy lamb boosam joxey la géeyam ana soppey borom daaru saam ku weddi laajal ña daa dem di laaj njël ku weddi am njël màggal leen borom daaru saam Seex Masamba ku lay la géeyal nun ñu koy liggéeyal Cheikh Massamba ku lay liggéeyal am nit ku màggee Cheikh Massamba ku lay liggéeyal nun ñu koy liggéeyal Cheikh Massamba ku lay liggéeyal am nit ku wallahi masha Allah wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh bi noonu déglu noonu alhamdulillahi alladi xalaqa as-samawati wal arda wa jaala zulumaati wan nuura summa alladina kafaru bi rabbihim yadiloon huwa alladi xalaqakum min tiin summa qada ajalan wa ajalun musamma summa antum tamturun huwa alladi fi samawati wa fi l ardi yaalamu sirrakum wa jaarakum wa yaalamu ma taksibun والصلاة والسلام على المبعوث بالحق رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وخير خديمه وأمته أجمعين حضرات الشيوخ الأجلاء asxaabu samaati wal ulama bimunasabati hadihi alyawmi almubarak nuhayyikum taxiyatan islamiyatan tayiba wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi fi dikk ak yi fi dëkk yépp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare di am bu baax ci teewaat bis bi di sant yàlla bu baax itam di ko ñaan lépp loo xam ne yëngatu nañ ko ci bis bi rek sunu boroom defal nu ko aw yiw ñu ngi nuyu bu baax di siyaare mun taxa di ko ñaanal yàlla mu may ko fan wu gudd wu ak wér ba li mun naa ne liggéeyal lislaam naal ko liggéeyal ci Sëriñ Tubaa ci wàll wu nekk ci fànn gu am njëriñ gu nekk sunu borom may ko kàttan mu àggale ko ni mu ko bëggee bi jaay xaadimi rasul noonu ñu nuyoo sëriñ bi doon lañuy nuyoo itam ki fi toog toogaayu sëñ Masamba Diop Sam muy sëñ Abdourahim Diop moom itam di ko ñaanal sunu borom may ko fan wu gudd wu ànd ak wér ba mu yéene liggéeyal sëñ ma Masamba Diop Sam lépp mu àggale ko ci ni mu ko bëggee di nuyu di ziare ahfaat yi nga xam ne ñi ngi ci suñu ginnaaw li ko tàmbalee ci sëñ ma ma sàmba ba ci sëñ Abdourahim mii fi nekk tey mën nañoo wax ne ñëpp teew nañ fi li ko tàmbalee ci ci jëwriñi maanaam ci ki njëkk nekk xalifa sëñ ma Masamba muy sëñ ma Jóob Samb sëñ ma ma sàmba njabootam ba ci ki fi nekkal sëñ Massamba tey muy sëñ Abdourahim ñoom ñépp seen njaboot teew na fi tey kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla ci barke seen maam lépp lu ñu yéene liggéeyal seen maam ñoom itam ñàggale ko di ziyaare bu baax niñ ko daan defee bu ñu ñëwee fii jëwrin ji nga xam ni jëwrin la ci kër sëñ Tuubaa te kenn natteeluwul ak njëwrinam mm-hmm. muy Cheikh Ahmadou Bakki yu fay mi nga xam ni tuuram des na ci taarix te du ci jóge ba yombal xew ndax liggéey bu mu liggéeyal Sëñ kon ñu koy ñaanal mboole moom ak mbooleem ñi ma àndal liggéey bi sunu boroom yal na leen dollee kàttanal yokk seenu fan ba li ñu yéene liggéeyal lislaam lépp liggéeyal ko Sëñ mu àgg nañ ko bëgg waaye di nuyu itam xale yi daayira bi xidmatul xadim xidmatul xadim nag dafay mel ni setadoo benn forage boo xam ne dafa am benn setadoo bu mag boo xam ne képp ku bëgg a naan màndal na la mooy jëmmi xidma waaye robinet ba ñuy naane nag ñu teg ci li xidma li Cheikh Massamba Diop Samb xam ne sin tawoo ba ñu bënn ca rëbinab sëñ Tuubaa boobee ma ngay ballee ci kër sëñ Masamba Diop Samb ci njiital sëñ Xaadim lay ñu ngi jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom ndax xaw naa guddi ngir mu jottalil na ko ci mbooleem membar yi nekk ci daayira bi yëpp zukuran wa inasan sigaaran wa kibaara di nuyu bu baax di ziar nag nuyoo boo xam ne dañ koy génne ci biir am nuyoo bu ñu defoon ci ak jagle ci am waaye ki ñu tudde bis bi tey muy kenn ci njabootuk sëñ Massamba Diop Sam di kenn ci ñi nga xam ne ñoo génn ci daaray Serigne Touba di kenn ci ñi nga xam ne ñi Serigne Touba yaral boppam la bokk muy Baye Serigne Diop mi nga xam ne cheikhul xadim lañu ko tuddee cheikhul xadim jël ko yoral ko boppam ba gërëmal ko boppam dellu sëriñ Bass Abdou bokk ci njabootam di ñetteelu xalifaam tey jii ñu jël bu màgg bi tudde ko ko ak njabootam ay doomi boppam ak ay sëtam ñoom ñëpp ñu ñëw teewe ci bis bi ñu ngi leen di jagleel nuyoo boobu suñu am sëtu Jóob mi ngi nii doomam la ànd ay doomam yépp teewal fi sëñ Baara mi nga xam ni tey moo fi nekkal Baye Serigne kon du ñu man lu dul ñoom itam ñu jag leen leen ab nuyoo tatagal leen dalal leen ñaanal leen itam li ñu yéene liggéey lépp ñu matale ko waxtaan wi nag ni ñu ko waxee léegi xam naa ni sax du gudd dañu koy tënk ndax guddi na ba noppi waaye liy tënk bi liy gudd gàtt bi rek mooy yeesal pas-pas ak xam ne li fi am njariñ tey ak ëllëg mooy pas-pas bu sell bu ànd ak jëf àdduna waxi kese jëgalu ko mag ña rawoon ci ay wax ci ay jëf lañ ray woon waaye du ay wax sëñ ma sàmba Jóob saam nafaana bi bi barakaatihi kenn munta tudd kër sëñ Tuubaa ca tuddoo lu tax loolu du ay poète yi mu way yu bari du ay téere yu mu bind du ay histoire yu ñuy rencontré ci moom waaye jëf ju ju lal pas-pas bu wér bu ànd ak ragal yàlla ak gëm Sëñ Tuubaa doyloo ko moo ko may lii kon ndaje mu mën di doon ñu koy daje di fàttaliku ku ci mel ni sëñ Massamba Diop Sam wala kenn ci mag ñi toppun sëriñ bi nañu xam ni ndaje moomu du waxtaane seeni melo ak seeni seeni jaar-jaar rek waaye waxtaane seen pas-pas ndax waxtaane pas-pas dana jariñ kii déglu sëñ Moussa Ka daf daan wax ni wala boog sëñ Bay Jaxate kenn ci segem dama bon ba mbooleem nit ñi gën ma du tee may topp gaayaa waxtaanee ka wax nañu mel gaayaa ma saf ñoo ma duggit ñoo melit na ma saf seeni wax ak seeni jëf waa may asal la waa may njariñ la xatal koo gis ci ñoom mu ngi def dunyaa ni medd mu nëpp di soxla woo yàlla ak yonneen ba tey rafetal dem na ba ca biir muy wax ni waxtaane yàllaa ki gaayam yii wu nit musa am xamal ni kat ca la yow murit bi yëgal yéen ci ni waxtaane duniyaa ay wu nit ma sa am xamal ni kat ca la juddoo yow murit bi yëgal kon ndekete gudd gàtt waxtaane waaye yàlla mooy pastir ba rek moo cam solo hmm. ki nga xam ne nag moom lañu tànn tey muy borom barab bii di borom bis bii tey ñii fi teew ñëpp kenn ku ci nekk am pas-pasu barkeelu ci moom liggéeyal ko moom de kenn ku ci ne xam na ni la ko mayoon la ko la mu amoon ci Serigne Touba muy pastéef pastéef boo xam ni musta tekki ku guddee bëccëg doonan itam jàmbaar doonan ab jullit doonan aalim doonoon aabit doonoon itam waree mooy waaree mooy koo xam ne dafa sàmmoon kanamam ak gannaawam euh, dafa am benn waykatu naar bu wax ay bayit yu néew ci sëñ bi danaa ci indi ñaari bayit rek tàmbalee te mooy lam wax ni boo bëggee boo bëggee tànn ci jabootu sëñ Tuubaa ji wala yaree ci sëriñ Tuubaa yi ku dajale li ñuy tuddee ashariatu wa al mutahara ak al xaqiqatul munawara tabe lool ragal yàlla lool nangu koo jaamu xam yàlla lool nite lool loo ñàkk ci àdduna boo ko laajee mu jox la àllaaxira lu mu ca doon mu ni boo xam ngeen bu ngeen bëggee gis kooku kan la ñu ne ko déedéet mu ni da ngay dem jotaayu ak sëñ Massamba Diop Samb mu ni boo boo seetee bañ ne la sëñ Massamba Diop Samb fii la jaaroon nga jaar fa da nga am lool in rumta majlisa si jodin wa karamin nga ne ha mu ni falaa tujaalis falaa tujaalis si waa muxaddami saani falaa tujaalis si waa muqaddimi sàmm lii boo ko bëggee bul toog ku dul sëñ Masamba Jóob sàmm ñu ne ko ha mu ni waaw man kaana muftaxiran waa faahu mujtadiyan yarjix ilal ahli saa faraxin min saami loo bëgg ci yàlla lu mu jafe jafe jafe jafe rañaanal gontu xëy dajeeg sëñ Masamba Jóob wala nga dajeeg ko dajeeg moom nga jëfal ko tabay ko ci pasteef nee na boo delloo suñu borom dana la yenkee wala loo xam ne danga nga bëgg sa njaboot da nga bëgg ñu ko koy wax mu ni zaakal muqaddamu cheykhun nastaxisu bihi farda masamba xaab sairu lismi fi saani mu ni kooku laa jubloo wax rek mooy cheikh masamba Diop Sarr di jëm ko Serigne Touba loolu la bokkoon ak Serigne bi kon loolu ak tolloo la ak moroomoo la ci saayir waaye nag sëñ Tuubaa da koo rawoon ci bëtil ndax sëriñ bi day koo xam ni day borom jagle koo xam ni. ci xam-xamu zahir ak baatin ci dem ba. sëñ Massamba Diop sampee na soxna di am sëñ Massamba Diop sam am na ko waaye bi mu gisee sëriñ bi la ko sëriñ bi wan ak Pastef ba ko sëñ Massamba Diop sam wan ba mu jógee ci sëriñ bi wax na ni Masamba dey bu teeloon a gis sëñ Touba jàng du ko ci fekk loolu mooy lan lu ko waral mooy nit ki li tax mu jàng sëñ Touba da ngay ñëw mu def ko ci yow moo tax kenn munta lim ñi àndoon ak sëriñ Touba ca baawoon tax ba li a am lu waaye am ci lu baax nga am ko te te limale wu sëñ Masamba Diop Sarr doon na koo xam ne ci ab tënk fa doomu yi daan jaar jaar na fa te mooy suñu borom jaarale ko ci askan wu sell wu set wu amul benn rax askan woo xam ne seen guddi jaamu yàlla la seen bëccëg jaamu yàlla la alquran ak sunna lañu doon dund ñu bàyyi koo fa askan yu baax ya daan bàyyikoo lu gën a bari muy fuuta ñëw ba ak si kajoor def seeni listixaar loolu day guddal waxtaan wi suñu borom wan leen barab bu sell ñu sañc foofa samp fa daara di fa dundal lislaam muy barab bu ñuy wax ca Kajoor nexe jóob nexe jóob boobu la nga xam ne maami sëriñ ma sàmba jóob saam ñu mën caa tudd ku ñuy wax yelli jóob ak singar jóob nga xam ne ay nit lañ woon ñoo xam ne naka jekk jaamu yàlla ak alxuraan ak sunna lañ daan dund ñoom ñoo sañ ci dëkk boobule ci gàttal téeméeri at ak fanweer ak juróom-benn way juru sëñ Masamba Diop Samb gane àdduna muy sëñ may sa sëñ may sa Diop moom itam jaar ci yoon wa ay maamam jaaroon ba mu matee ba matee samp kër mu jël jigéen ju baax ju yiw ju tedd yu ñuy wax soxna Penda Mbay soxna Faati Penda Mbay di jigéen joo xam ni ca jamonoom wax nañu ni nit ñi daana ñëw ci moom di sàkku si barke bokkoon ci saalihaat yi muy wajuru sëñ ma sàmba Jóob sàmm daana tërbiya daana itam tarxiya ca kem la yàlla jaarale ci moom ci wàllu xam-xam en tant que jigéen waaye nag wal baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi isni rabbi loolu moom lañ koy bàyyi xel toujours bokkoon ci saalihaat yi sunu borom di teral moom soxna fi ak Penda Mbay daa feeñal ci moom itam karaama ndax ñëw sëñ Massamba Diop Sam bokk na ci ñi ko jëkk xam moom way jur mu jigéen kon suñu borom daana feeñal ci moom karaama yu baree baree bari guddi gi duñu may waxtu yu du ma ñu ñu leeral ci yenn waaye loolu luñ ci mën a dégg rek mooy pastéef ba góor di am ba amub cër ci yàlla ba ko jigéen amee itam amub cër ci yàlla pastéef bay jàlle góor ci yàlla bu ko jigéen amee sunu borom jàllale ko ci boppam kon mbir mi yàlla defu ko góor ak jigéen góor def ko ci góor rek ci jigéen ñi ci la bokk ndax soxna Fam benn mii di wajur ma Massamba Diop Sam liggéey na lu bare bari ci lislaam tarbiyee ñu bari jàngal nañu bari waaye li ñuy wax karaama itam sunu borom daanaka feeñ ci moom te jigéen ñu bari itam sunu borom feeñal ci ñoom karaama xoole soxna Faati Isa waajuru maam Ceerno Birahim radiyallahu taala anhu ci gàttal ndax li ñuy li ci suñ kanam dafa xaw a yaatu pour xamal la ne jigéen kenn demul mu des pas-pas ba muy am ci yàlla rek ça ne dépend ca lool wax nañu ni sëriñ bi bi mu nekkee Gabon am na ci at yoo xam ne communication bi dafa dagg euh, xamatuñ ci sëriñ bi lu bari lettres yi daan ñëw bëreetut ba sëriñ bi am diir bu gàtt diir bu yàgg xamuñ ci moom dara tubaab yi profité foofu ci équation boobu wane ni Cheikh Ahmadou Bamba génn na àdduna xabaar boobee ba mu agsee ba agsi ci maam Thierno maam Thierno Birahim am na ca jaaxle lool jaaxleem boobu kan moo ko ci jëlee waajuru mu tedd ba soxna Faat Isa bi mu ko xamee ci kanamam la ko woo mu ñëw mu ne ko Thierno dafa mel ni dafa amal dafa am lu ma xam sa kanam mu ne ko li li sa li ma yëg ci sama bopp day man rek maa ko xam ba mu ko laajee mu nettali ko mu ne ko no loolu ñuy wax dara amu ci. te boo defee nangam ak mu gis sa mag ju tedd jooju ci guddi tey jii te waxoon na ma ni maa lay yor ci bàmmeel te maa ngi nii di dund kon sëñ Touba demul fenn ngi dund loolu karaama la boo xam ni dafa bàyyi ko ci soxna Faati Isa kon sëñ Masamba Diop Samb mi itam Baye Serigne Diop nee na borom bis bii Baye Serigne bokkoon na ci sëñ Touba yar nee na Cheikh Massamba Diop Samb nee na ko bi ma amee juróomi at ci laa dal alxuraan bi ma amee fukki at ci laa mokkal alxuraan xattan wa tilaawa bi ma amee fukki at ak juróom ci laa peeg mboolem fànni xam-xam yi nga xam ne doomi soxna war na koo xam ca jamono jooju bi ma amee ñaar fukki at Baye Serigne Diop nee na sëñ Massamba Diop Sam nee na ko bi ma amee ñaar fukki at ci laa gisee ku tedd ki xaadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam gisee mag Serigne Touba itam gisee mag Serigne taxaw seetlu ak jàngata ngi ndax dañoo gisee ci àll wala dañoo gisee ci xamante wala lenn déedéet alaaqa ilmiya la boo gisee sëñ ma Diop Sam boo gisee sëñ Masamba Diop Sam bokk ci ñi jëkk génn ci ci njabootu sëñ Tuubaa gi te fees dell la te it li ko ko may daje gum dajeeg sëñ Tuubaa ci seen alaaqa di ilmiya moo ko waral ña nga daje ca dëkkam bu sell be di daaru saam la ko sabab nexej gëm daan jóge di jàng si xam-xam ci borom saam ñu daan ko wax sëñ Modou Batoor Sarr sëñ Modou Batoor Sarr di wë di di wëlëre ci Mamor Anta Sali te Mamor Anta Sali xam ngeen ni jàng ngeen ci taarix ne am na ay jamono yu baree bari yoo xam ne fu mu musaa jëm li ci ëpp ku tedd ki lay àndal xaadim rasool mu jëm saam di seeti wëlëre boobee ànd ak sëñ Tuubaa fa la gisee sëñ Masamba Jóob saam foofee ca garab googee ci wetu armeel yi muy ngeen xam lan moo tax a jóg sëñ Massamba Diop Sam sàkku xam-xam kan la ko doon sàkkoo ci Maam Modou Batoor Sarr lan moo yëkkatiwoon Maam Mor Anta Sali alaqatu sadaqa fedd li ak kóllëre digganteem ak moom lan moo boole woon Serigne Touba ak Maam Mor Anta Sali mu ñëw foofa mooy Serigne Touba Maam Mor Anta Sali daf ko doy la woon bu ñaari fu mu mës a jëm ci borom xam-xam daf ko yóbbaale ci gàttal bi ñu gisee foofu li ñu jëkk a waxante ci xam-xam la kon alaqa sëñ Massamba Diop Sam ak Serigne Touba alaaqa ilmiya la alaaqa ilmiya la dafa wuuteeg yeneen alaaqa yi ci gàttal waxante nañ la doomu soxna di waxanteeg morom ja waaye Serigne Touba nag sunu boroom daf ko mayen lu mayul kenn ndax bu dee xam-xam xanaa maam Mor maam Mor Batoor saar mi nga xam ne fenn fu ne nit daana fa jóge di jàng si moom géej la woon waaye buñ la waxee xam-xam bi dajalee Serigne Touba ak sëñ Massamba Diop Sam du xam-xam bii nekk ci téere yi nekkoon xam-xam nekk ci téere yi sëñ Massamba da wan xam-xam téere yooyu ginnaaw dem topp sëñ Touba waaye sallallahu alayhi wa sallam dafa waxam ni man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu tariqan fil janna ilal janna képp ku jóg di sàkku xam-xam ngir yàlla yoonu wa nga sóobu dara taxulaa jóg lu dul yàlla ak xam-xam yàlla yombalal la yoonu àjjana yoonu àjjana yi mbokk yi jàpp naa ni dara gënu caa jàpp ni dajeeg sëñ Tuubaa te nangul dara gënu caa wóor dajeeg sëñ Tuubaa te nangul ko ni nga xamee ni sëñ Masamba Diop Samb bi muy sàkku xam-xam bi mu dajeeg sëriñ Tuubaa daf ko daal di nangul waxante nañ ci xam-xam bu ñuy tuddee xudra mu tasawi fóone yi naa waxtu yi dafa dafa gàtt waaye danañ la kon danañ la jéem a leeralal xam-xam boobu nga xam ni moom la ñuy tuddee ilmul xudra te xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni bi ma sunu borom riñaanee euh, bokk na ca lam ma terale jokkalante naag man ñetti xam-xam yu bokkut benn xam-xam bi ñu ngi koy tuddee ilmul ahkaam xam-xami atte yi defal ak bul def ku def lee atte bi loolu ñëpp ci yem ku jàng ci téere yi rek lu ñu ci yàlla wërsëgale da nga ko am xam-xam boobu moom la ñuy tuddee ilmul ahkaam ak xam-xam bu ñu tuddee ilmul asraar moo ñaareelu xam-xam bi ilmu asraar nag bokkut ak li ñuy tuddee ci suñu jamono ji lasraar ay xaatim ak ay bind ak ay sampi ay kuur ak yooyu dem déet du ilmul asraar xam-xam boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi ñëwee daf koo daf koo rafaatale saxaaba yi daf ko rafaatale saxaaba yi war a lan saxaaba boo ci gis rek bu jàkkaarloog bu jàkkaarloog yow xam ci yow xam yow mii ban poroblème moom nga am nituk àjjana nga nituk safara nga lan mooy sa lan mooy sa bàkkaar bàkkaar boo def tey lu koy kafaara ci xam-xam boobu lañ koy jëlee waaye xam-xam boobu am na bu ko gën a foor xam ngeen ni Seydina Ousmane ibnu Affan bi mu doonee xalifa am na ñu jóge woon Saam di ko siyaar si benn délégation bu mag war ay gëléem bi ñu dikkee ba ci diggante bi ñu yendu bi ñu yendoo ci benn dëkk yësal seen ay gëléem mbedd mi ñu toog am na génn jigéen ju rafet ju fa jaar kenn ci ñoom xool na ko ba settantal ko ba gis taar bi yéegaat gëléemam ñu doxaat ñaari fan ak si na wara bi ñu agsee ba nuyoo seen asmaan ni jàkk seeni kanam daad daf daal di wax ne yadxulu ahadukum wa fi aynayhi asarun lil jima walaw anna walaw anna al islaama bayyana ba uquwwata li zalika la azabtuka walakin tubtu ila allah dugg si ngeen am na kenn ci yéen koo xam ne bët yi jeexitalu njaalaw ngi ci de lan moo ko xamal loolu xam-xam bu mu doon ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu di ko tuddee ilmul asrar ñetteelu xam-xam bi nag moom la ñuy tuddee ilmul qudra ilmul qudra moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ba ko suñu borom joxee daf ko koo dénk ni ko sàmmal ma ko ku la duyul bu ko jox la nga seet ki nga koy jox ba mu doy la nga door ko jox xam-xam boobu am na ko ñuy wax Muhammadul Arabi Muhammadul Arabi ci gaa yi yàlla yi la bokkoon nee na yàlla jox na ma xam Seydina Muhammad sédd na ma ca xam-xam xudra boobu ñu ne ko ilmul xudra mooy lan mu ne inna sirral xudra lam yatlahi llahu nabiyan mursalan wala malakan muxarraban illa nabiyina muhammadan sallallahu alayhi wa sallam waxad atlahani alayhi bi tariqati l wirasati l muhammadiyatu sallallahu alayhi wa sallam nee na sirru xudra boobu nee na yàlla jox na ko yonente bi xamal ko ni ko xam-xam bii ma la jox musuma koo jox bu yonent du ma ko jox malayka muqarrab danaa la ko jox nag yow képp koo xam ne moo wuutu sa jëmm ci kaw suuf am nga sañ-sañu jox ko xam-xam boobu sëñ Tuubaa nag bokk na ci ñu wuutu sa sa rasulillahi sallallahu alayhi wa ci kaw suuf moo tax suñu borom rasulillahi jox ko xam-xam boobu xam-xam boobu nag ci la yëral sëñ Masamba Diop sàmm moo tax mu wan ginnaaw téere bu mu sa jàng ni sëñ Tuubaa ñii bu ma ko teeloon a xam duma jàng dara am na benn naar bu wax sëñ Tuubaa seere ci wax jooju ma wax ci ilm sirru xudra boobu mu ne xawsul wara ahmadul makki yu waarisu man waarisu asraarul ulumi xafiyatil jaliyaati xettalaa ko nu mbindeef yi muy Serigne Touba day moom la sunu borom doon na loo xam-xam yi am solo yépp ci zahir ak baatin moom Serigne Touba ci boppam wax na ni waaytu ilman laa yura fil bi bal jaa ani mi man xamaani biktum sunu borom feegloo na ma xam-xam yoo xam ne doo ko gis ci téere xam-xam boobu Serigne Touba dul gis nga xam ne mënoo koo jàng ci ay téere nag xam-xam boobu ci la Cheikh Ahmadou Bamba yenkewal sëñ Massamba Diop sam borom bis bi bi loolu amee ñu waxante ab diir sëñ ma sàmba dellu ni xëj sëñ ma sàmba jóob sàmm dellu ni xëj fa mu cosaanoo waaye mel ni rek li ko sëñ tubaaj musal ci xam-xam boobu fëleetul leneen lu dul dem sëñ tubaaj jekk ba yàgg mu tàggu ay kilifaam ni leen damay laxas te damay dem bakke damay dem damay dem pataar seeti sama wëllëre wu ñuy wax Ahmadou Mbacke doomu Mame Anta Sali ñu bàyyi ko wax nañ ne ba muy dem yóbbul benn téere téere ñu doom jàng yëpp fi la ko bàyyi jëmmi boppam la deme kon moo la waral ni tubaa Touba sëñ sàmba ba mu koy seeti maanaam ba sëñ Massamba seeti sëñ tubaa ca Pataar jàng yóbbu ko fa ndax sëñ bi wan na ko lu yoon wu gën a gaaw jàng ci diggante bi gise moo tax ba mu demee bokk na ca. li ñuy nettali ne xew na foofa xew-xew yu bari la danaa ci indi ñett yoo xam ne kenn ku nekk ci ñun ñi xam nga ni sun borom barkeel na ñett yooyu te sëñ Massamba Diop Samb moo ko fa jëkk a def bi ci jëkk mooy boroom xam-xam bu mag wax na ne bu ñu wax euh, Moustapha Abdoul Djil bokk ñi doon toppatoo taarixi mag ñi wax na ni sëñ ma Massamba Diop Samb bi mu ñëwee Pataar li mu jëkk a defal sëriñ Touba mooy takkal ko am néeg ndax boobu xam ngeen ni bi tout tànk la ñaareel bi ay magam a ngi fi ak ay bokkam te Serigne bi it diir maam woon rasul di nekk sëñ Basiiru nee na taxawulul dara feeñulul dara ku dul ku yàlla xamal dara rek mënoo xam ci Serigne bi dara. ndax kenn la woon ci kër sëriñ bi rek daan dem tool ni nit ñi demee tool ñu di ko daggal ay sas ni ñuy daggale sas nit ñi du liggéey comme ni nit ñi di añ di ko wàcci di ko def loolu li ñuy def loolu yëpp moom sëriñ Tuubaa al jooju nga xam ne fii la ko sëñ Masamba Diop Sam fekk nag bokk na ci lim ko jëkk jëkk a defal mooy néegam bu ndaw ba ba ñu daan tudde pekkatu pekkatu wala fi xam nañ ko mooy néeg bu day ni néeg boo xam du jël ñaari mètre daanaka ab dara fay xaj ak ay sëñ Tuubaa néeg bu mel noonu la amoon sëñ Masamba Diop Samb ba mu wàccee pataar li mu njëkk a def mooy dugg ci àll bi gor gayet takkal sëñ Tuubaa am néeg moo tax sëñ Tuubaa sëñ Masamba job Samb lu mu musa laalal sëñ Tuubaa barkeel fi mu toll amul benn réew booy dem ci àddina daanaka te fekkoo fa ay këri sëriñ Tuubaa kon ki takkal ki jëkk takkal sëñ Tuubaa am néeg liggéeyam barkeel na kooku benn la euh, ba ko ñaareel itam yàgg ngeen a dégg xista bu siiw le comme sëriñ bi kenn la woon ci kat njabootu Maam Anta Sali ca yàlla fii ñu lagu ko woon ñu bari xamaguñ ko woon da daan dem tool ñu di ko sas ni ñuy sase nit ñi muy bay ni nit ñuy bayee sëñ Masamba jot Sam mi yàlla teel a xamal sëriñ bi moom ci baatin mu fas yéene moom sëñ Tuubaa moom génn ci lool bëgg cee jàngalaale nit ñi itam ni leen jëmba ngi ni joo xam ne bayloo ko mi ngi mel ni fekk tool boo xam ne jamaa ak or la feese boo gasee juróomi meetar àgg ca mën caa jariñu fi nga jël tool boobu di fa bay bisaab wala nga di fa bay kànja wala nga di fa bay basante wala yeneen yi ngir xamal leen kan mooy sëñ Tuubaa nag moo tax sëñ ma Masamba Diop Samb jël sasam woowu nga xam ne yàgg ngeen koo dégg muy muy muy muy muy jëf ju rëy ju sëñ Masamba Diop Samb jëf ci kër sëñ Tuubaa te mooy te sëñ ma sëñ tubaa bàyyi ba sas woowee te it du daa dem bàyyili ko ku nekkoon te daara ja dañ laa daan sas sas sëñ sas ko mu boole aw sasam bay ko ba mu àgg bayaale sasu sëriñ tubaa xaadimu rasuul def na ko ay yoon yoon saa yu ñu xëyee yokk doon yi yokkal sëriñ bi yokkal sëñ ma sàmb te maa ngi waxtaan ak benn sëtam léegi fii ci mu wax ma ni ma ci netti lu wér sëñ ma sàmba Diop Sam ni mu daan liggéeyee pastif bi mu daan àndal da daan def bu Mamor Anta Sali génnee seen ko ci tool yi daf daan wax ne kee moom la muy def jag naa ndax wér na ndax sell na ndax ndax positif bi ak gaawaay bi bu ko defee buñ ko nee ah, moo ne mbàkk de liggéey ba sell na mu ni kon am na lu ma àndal kon positif bi xam ci tàmbali bi comme Mamour Anta Sall daf koy séen ba xàmmee ko ba xam ne da jëf ji ni mu gaawee ni mu positifoo ak sellite mën na caa bañ am ba mu laaj ko ko xamal ni ko na mu ni comme am na lu ma àndal kon am na lu ma àndali Mamour Anta lu wér la wax nañu ne yëmul woon ci di bay di bayal sëñ tubaa di bay aw sasam rek ak di liggéeyal maam Mor Anta Sali ngir sëñ tubaa waaye wax nañ ne bu ngoon musaana jot daana dem gont ji ci tool boo xam ne toolu ngontal ngontalaat lañ koy wax ngontal loole daana def bu ñoree sàqum ñett lay doon mu jëbal ko sëñ tubaa ci addiya ko kon xam ngeen ni te booba kenn kenn xamagul sëñ tubaa ci saayir nag kenn xamagul sëñ tubaa ci saayir ba ca topp mooy ku ne xam na ne ak taalibe itam moo ko jëkk jàngale ci kër Sëñ Tuubaa ak taalibe nettali nañ ma ne am na bis ci ci pataar Maam Mor Anta Sali am fu mu soxla waxtu nawet woo Sëñ Tuubaa yebal ko Sëñ tubaa woo Sëñ Masàmba ne ko gunge ma ñu yow aw fas ci kër Maam Mor Anta teg ci ak teg jël ay téere teg ca bu ma juumul ki ma nettali nee na ñaxal la sëñ Tuubaa jëmoon ca xaadima jaxate kala ngir am ay téere yu mu doon wecc ko ci moom téere yooye gaal ga ko defoon sëñ Tuubaa dafa war ngëlamu li sëñ ma Masamba Diop Samb yanu gaal gi ba mu ne fonkul gaal gi yanu wax nañu ne waa daara jëpp dañoo maase di ko ree daal di ndaama lii moo bari solo ki war a fas mënoo cee teg gaal gi waaye sëñ Masamba moom xamoon na ki mu yanu mooy kan wax nañu ne lu génnee ab diir di dox aw xiin sàqi wu mag wu ànd ak ngelaw cheikhul xadim radiallahu anhu geesu sëñ ma Masamba ni ko ma sàmba gaal gi de nagg na te xiin wi ñuul na ragal naa ñu tawte te ngaa yéeg ci ginnaaw fas yi ma yoral la gaal gi ñu soññ fas yi ñu dem sëñ Masamba ni ko ëpp naa def demal rek Masamba Mbàkke daa soññal te dem sëñ sàmba de sëñ Tubaa geesu sëñ sàmba soññ fas wi sëñ ma sàmba jàpp ci geenu fas wi wax nañ ni ba sëñ Tubaa ak taalibe ak taalibe ci sëñ ma Diop Samb la lañ koy jànge ndax bokk na ci ñi ko dëkk wane ci kër sëñ Touba ma yoon woowu bi nga xamee ni sëriñ bi jox na ko ndigalul yéegal gaal gi ci kaw fas wi ngir ma mën a soññ fas wi ngir xiin wi sëriñ Massamba Diop Samb dafa gàntal wax ko ni ko mbàkke soññil sëñ tubaa soññ fas wa sëñ ma sàmba yanu gaal ga topp ci sëñ tubaa topp sëñ tubaa topp sëñ tubaa wax nañ ne bi sëñ tubaay wàcc ñaxal sëñ ma sàmba jóob sàmm moo jàpp ca digal ba mu wàcc te ànd ak lépp nag ci zahir moo jiitu sëñ tubaa ci kaw suuf bu doon li ñuy wax ak mag moo ko def moo tax wolofal waykat wolof ba wax ne jaaraama seex ma sàmba jóob borom saam bu dul ko nag yow bàmba réer ba dem saam jaaraama sëñ ma sàmba Jóob boroom saam bu dul ko nag yow bàmba réer ba dem saam ngir lu fi waaye am tey ci seexu bàmba war ngaa taxaw sante ko seex ma sàmba yaa jëkk a tuur saw ñaq ngir seex bàmba di ko liggéeyal ngir solos yonnen ba bi nga koy bayal dooñam ba woon ca paataar booleeg sayos loxoom ya yëpp dafi daar boobee ku xam seexul xadim ci baatin nekku fa kon seex ma sàmb rek kon kon kon waaye itam mu teg ca ne bam lay siñeel añab ëllëg yowmal xiyaam boobee ku am añab ëllëg nekkul fa daaw loolu yàgg ngeen ko dégg te loolu day doy waar la nag lu doy waar doy waar kon li ñuy mën a dégg ci xista boobu rek mooy bu ñaareel bi mooy sëñ Masamba Diop Sam ak taalibe ku ko teel wane ci kër sëñ Tuubaa la ndax ba mu koy wane boobu xëmaguñ lu di taalibe moo tax bi ko ñetteel mooy doone boobu nga xam ne tudd naa ko léegi ak la ko ci sëñ Tuubaa dig te mu leer ni nam ko ko diggee noonu la ko amee te nam ko amee noonu la koy joxe loola dal na xel te mooy lexe woon ci daara jamono jooju rek xuppaate wala tàddiit boo defee nangam doo nangam loolee sëñ ma sàmba jaar na ca boo bayee sasu jàmbur booleeg sa was ba añ jot gisuñu la kenn du la sédd daañu añ bàyyi te noonu lañ ko waxee lañ ko defee wax nañ ne dooñam ba mujj a way dooñam ba mujj a bay ca lañ ko defee noonu ca la di fekk ñu añ ba pare te añ gañ añ ba pare du sëriñ bi moom la du netti la ko sëriñ waaye sëriñ bi moo ko woo laaj ko ni ko Masamba mu wuyu ko mu ne ko xanaa dañoo añ bala mu ne ko niiru na ko mu wax ko loolee mu ko wax te mooy Masamba añu fi amul solo fa am añu solo danañ la ko fa fàggul ba mu ba ma sàmba mu ne ko Mbàkke mu ne ko sama loxo bu tuut bii bu ëllëgee lu yàlla séddale ci lay jaar te dinaa la séddal ba nga doy fam loo xam ne ci tawriya la koy leeral ndax euh, ñu faral di nettali sëñ ma jomb sàmba bi mu nekkee ci kër sëñ tubaa bay waa di am ngërëm te sëñ tubaa di ko attaayaal dégg ngeen ba tàyyi xëstu boobu di ko attaayaloo wala boog di ko laaj baraade bi ci ci xal yi di ko indi ba am bis mu jël ko ba am ci baraade boo xam da ko yëkkati mu tàng ci ay loxom te sëñ bi jox ko ndigalul mu teg ko sëñ sëñ ma jomb sàmba téye ko rek téye ko mu tàng ba baraade bi seet ci ay loxoom bi mu ko nee tegg mu ànd ak deroo Sëñ Tuubaa xool ko gis ko ni ko ah Muudu Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko daa mel ni daa xaw nugg de mu ne ko waa xaw naa nugg wax nañu ne Sëñ Tuubaa daf ko ne loolu mooy seen waat sunu cër ci safara biñ ko nettalee Sëñ Abdou Khadir Sëñ Abdou Khadir dafa dafa wax ne loolooy sa wàll ci safara la sëñ bi waaye lépp benn la lépp benn la bi nga xamee ni sëriñ bi jóge na Pataar ñëw Mbàkke Kajoor Mamor Anta Sëli génn àdduna yoonu murit taxaw sëriñ bi woote njébbal sëñ ma Samba Diop sam ràññi ko ci lool te loolu wax nañu ni keroog ba mu waxee moom sëriñ bi ne ku fi ñëwoon ca jàng indi la fi baye boo dem ku bëgg li ma bëgg toogal sëñ Masamba mu waxaale ko ndax ba muy dem jàng yóbbu ko ca paataar la woon diggante ma moom wax nañ ne wax na ko ab diir ñu njëkk a jébbalu jóg jébbalu muy sëñ Adama Guèye wax nañ ne sëñ Ibrahima Sarr Njaañ moo ca topp wax nañ ni sëñ Masamba Diop Samb bi mu jógee ba raam ci sëriñ bi. sëñ Tuubaa dafa wax ca kaw ni ko ma Masamba delluwaatal démb la woon sama digganteek yow du tey ragaa di ñuy lim ni sëñ Masamba Diop Samb mooy ñetteelu njébbal waaye sëñ Masamba Diop Samb kenn jiitu ko sëñ Tuubaa ndax lii sëñ Tuubaa ko wax Masamba mu ni ko Mbàkke mu ni ko dellu démb la woon du tey ba keroog ba waxee ne ala man sa saibani li taallumu fal yartail wa man arada ma aradna fal yasir bi na képp ku ma àndaloon ngir xam-xam delluwaatal delluwaatal wutiwaat xam-xam li ma xam-xamoon li ma xamoon jàngal naa la ko ku ma li ma indi indi nag toogal في نبي نور عزيم قد يرى بي حضور غيزرى من قال في أم الهرى مكان خير الأرم يلما كيوان كبر زرها يا وحمد رسيا فكل بلبان وزمان ينبي أتى زرير الغزرى لأجل للإبن لنور أفضل الورى يلبك بعد صلاة لا تزول يا المسجد الخضر وفي جديد الزمان لا إله إلا وسلم الألام من عظم من الجلال لغير سبيل الخلال sëñ Touba bi mu wootee li mu wootee sëñ Massamba bokk ci ña fa jëkk yëmul ci loolu dafa mel ni mook ca Mbacke Kajoor yoonu murit taxaw sëñ Touba jóge Mbacke Kajoor dem Mbacke Bawal mook sëñ Massamba Diop Samb Mbacke ja Mbacke Bawal sanc Daaru Salaam moo sëñ Massamba Diop Samb mu sanc Touba mook sëñ Massamba Diop Samb sëñ Touba jóge fa sanc Jolof mook sëñ Massamba Diop Samb sëñ Touba dellu ci géej gi sant mag ñi kenn ku ci nekk nga dellu fa nga nekkoon te nekk ca lam la santoon sëñ ma sàmm Jóob sàmm dellu daaru sàmm waaye mbokk yi ku ñeme dañ laa dey teewlu wax ji gis nga samaani hijjajin ilaa xalilan yi sëñ Tuubaa nekk ci géej gi li la xamal li sëñ ma sàmm Jóob sàmm du kenn at mu nekk lam war lool sëñ Tuubaa ci addiya dana ko génne moom sëñ Massamba Diop Samb bu ko génnee woolu teelimbeem bu ñuy wax sëñ Abdourahmane Fall ñu ànd dem ba ci barab ñu yor ak buum natt ko def ko ci ay njaq muy xaalisum ngordu ñu suul ko foofa di xaar sëñ Tuubaa ñibbisi ci géej gi kon sëñ Massamba xamoon na ni sëñ Tuubaa dana ñibbisi ndax amul at soxna yi ñu ni ngeen may ñu ab déglu ñu ni ngeen may ñu ab déglu sëñ bi fi mu toll am na solo lool amul menn at moo xam ne diiru sëñ Tuubaa nekk ci géej gi addi yi sëñ Masamba Diop Samb manqué na ca daf koy defar ba mu day na mu war a del mu woolu taalibeem boobu ma wax ñu àndandoo ñoom ñaar natt ci barab suul ko foofee bi sëñ Tuubaa ñibbisee juróom-ñetti ñaqi dërëm yu góor la sëñ Tuubaa sëñ Masamba Diop Samb ma ngi ko fekk sënnoo si jox ko addi yi jooju sëñ Tuubaa dellu gànnaar mook sëñ Masamba foofee sëñ Masamba Jóob Sall fekk na ko fi mu toll ci kon ñaar fukki at juróom-ñett yoo xam ne sëñ Tuubaa sëñ Masamba Jóob Sall mi ngi ci ginnaawam laxasaayu di ko liggéeyal keroog ba mu ko jox lisaasu gànnaar ba lam ko ko joxe mooy positif bu ma amoon te sëriñ bi lu mu daan wutlu bokk na ca matt te gànnaar dafa bari dafa jafe woon matt sëñ ma sàmm Jóob sàmm bokkoon dañu ko doon wuti dem ba ci gàddu gu ñuy wax addabaay foofee tawat dabat dab ko fa metti yàgg ngeen koo dégg mu sëñ ma sàmm ngir liggéeyal sëñ ci gànnaar mu bind leetar sëñ ni ko sama yaram neexul wax ca la bëgg a wax sëñ tubaa lépp jëlaat kiit bind ca leetar boo xam ne ca tontu sëñ ma sàmm Jóob sàmm ca biir tontu loolee ca la sëñ Massamba Diop Samb amee licence ci la amee garanti àddina ak àllaaxira moo kupp ku ko yaakaar lan la wax bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baxda fa raddu jawaabi minni ilayka yaa Massamba Diop ilam bi anni maa rafaxtuka fi hasil masir illa li islaahi amruk fi dunia wal axira ma samba andiwu ma yow lu dul rafetal sa àddina rafetal sa àllaxira kon fa tib nafsan na sa xel dal ku day ni sëñ tubaab kum na sa xel dal sa xel war naa dal fa tib nafsan wa qarra aynan na sa xol sedd daal di koy xamal ni ko wa amma maraduka lati laa xaytuhu fi adabaay feebar boobu ngay jàmbat mu dal la ci dë ci gàdd googu ñuy wax adabaay fa maa awjabuhu illaa li taxliituka min jamihi uyubika allati tuhibbu firaqaha ma sàmba loo bëggoon a tàggool ci àddina ak alaaxira ak feebar boobu ànd naa ak moom tàggu ngeen feebar boobu la dal sa bañ bañu àdduna ak alaaxira lay yóbbaale kon laa tahzan ma sàmba bul jàqati foo toll wala taw jël ci bul tiit waaye la ca la ca topp nag mooy la ca dàq mooy fii nafsika waaye wa fii iyalika jami'an bul jàq bul tiit sa bopp bul jàq bul tiit sa njaboot mel ni dañ ko laaj ni ko lu tax mu ne wa asalullaha tabaraka wa taala ñaan naa yàlla te lu ma ko mos a ñaan may na ma ko an yarda an ka wa an jami iyalika mu gërëm la gërëm ku aaj ko ajo ci yow daal bind ca suuf leetar ba wallahu ala ma naqul wakil kon sëñ ma sàmba keneen la ku ragaloon yàlla la ragal yàlla nag mooy lan mooy jëfe ndigal bàyyi tere ragal yàlla gudd gàtt jëf ci ndigal yi wattu tere yi alkaramu huwa taqwa sunu borom digle na ko ci ba tey yaa ayuha nnaas inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum subuan wa li taarafu inna akramakum inda allahi yatqaakum yàlla nee ne ki gën a ki ëpp la ci yéen ci man de ki gën a ëpp daraja gënul ci man ki gën a judd ci man ki gën ci man mooy ki ci gën a ragal yàlla mooy ki ci gën a jëfe ndigal bàyyi tere sëñ ma sàmm Jóob sax doonoon ci misaal nga ne ab taalibe nan la war a mel ci ci ragal yàlla benn boroom xam-xam dafa wax ne ah, nit ki du àgg dëgg dëgg ragal yàlla lu dul li ci xolam bu ñu ko génne def ko ci def ko ci def ko ci palaat di ko jaay ca marché ba du am kers law ju'ila ma fi qalbihi fi tabaxin nasifin fi suuq lam yastayi mi man nazara ilay ragal yàlla mooy rek kenn ku ne li nga sa xol buñ ko sotti woon ci palaat yóbbu ko ca marché kolobaan bee di jaay doo rus loolu mooy ragal yàlla moo tax sëñ Tuubaa ñi ko mos a topp ñëpp ragal yàlla la leen dégg tàmbale sëñ sàmb Diop Samb sëñ Adama Guèye suñ Darou San Ndiaye kenn ku ci nekk bi nga ñëwee di jaayanteek sëñ Tuubaa mat nga góor yàlla sëkk kenn ku ci nekk ba nga demee la tax mu lam la dénk bokk a ci ragal yàlla sëñ Darou Assane Ndiaye sëñ Tuubaa nee na lu koy lu ko waaye di ëppalee ci yàlla daa neex suñu borom rek waaye du lu ñu jëf kenn du ko ca dab keroog ba mu ñëw ci sëñ Tuubaa di jébbal xam nga lu mu ko wax ñëw ma ngir am lenn ci àdduna damaa ñëw ngir yàlla rek ak sàkku ngërëm lillahi xad zurtuhu laa xayruhu arabi islay su zinatu xindun bil hawajati wa himmati sukru rabbin la sharika lahu jallalahu al araduna ka samawati ataytuka al yawma dayfan atlubanna rida rabbal baraya li si yuhti la diyati gis nga mag ñi ñoom dañoo yéeme woon bi ñuy ànd ak sëñ Tuubaa kenn ku ci nekk adduna taxu la woon a jóg gis nga kenn ku ci ne ci ñoom li la yàlla defal dafa mel ni paan boo duy ba mu fees bay ra rogalaat la cay rogalaat rek ngay gis ci àdduna waaye ñoom àdduna taxul leen a jóg sëñ Daro Sat Jaan ni ñëw naa sëñ Tuubaa maa ngi de waaye nag yàlla doom nga ma tax a jóg yàlla laay wër yàlla laay seet ak sàkku ngërëm am nga gan nag gan goo xam ne bëggul wurus bëggul xaalis bëggul dinaar bëggul ay lew bëggul ay fas li ko tax a jóg mooy ngërëmul yàlla boo ko amee ma jébbalu boo ko amul ma bàyyi sëñ tubaa jaayanteeg moom jaayanteeg moom sëñ Darou Assane Ndiaye ne ca ne ca ne ca ne ca ba keroog ba ko sëñ tubaa di wàcce di ko gërëm gërëm lañ ko booleel xam nga lan la ko waxe jasaaka rabbuka fi daarin yaa xasanu xayran bi jaayi lasi min najlihi xasanu hatta tafuusa lasi ardu taamuluhu miman lahu jàllahu kitmaanu wal xalanu fa lam bi anni raadin anka muttalibun an jaaka al fawsu min mawlaaka wal mikanu la lam jaayante woon ba muy ba muy jaayanteeg sëñ tubaa bi bi jaante gi matee li ko Sëñ Tuubaa wax ne nga mat na sëkk waxlam bi annaka anni anka muttalibun an jaaka al fawsu min min mawlaaka wal mikal kon nag falaa tasal fi toqaa moo tax Sëñ Tuubaa li mu yéeme mooy dawul way kenn léeg-léeg nga dégg ñu ni Sëñ Tuubaa daa way diw waaye Sëñ Tuubaa musta kenn Sëñ Tuubaa nee na saaw tàgg jombale naa ko kudu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. rasulillahi rek la musa képp kum wax ay bayit ba nga defe ne dalaa way def laa digal boo xoolee ca suufu bayit ba lam lay wax mooy mujj gis sa sëñ daara sànni ngi mënu ko wala tasal fi tuqaa wa rustubu taida kay laayu laa xëyee kal isyaan wal fi tanu doon wut am nga ko waaye saxal ci lii lan la ko wax wa kullu ma yahulu bayna rabbika wa baynahu fatruk tafuutu xayrika aadama mu ne ko mbàkke lépp lu na da dox sa diggante ak sa borom bàyyi ko te te dem ca sa borom ndax nit ñi kat ñu doxee sa diggante ak sa borom bu ëllëgee wala sa borom di jàpp duñ dox diggante ak moom kon loola daka dox diggante ak sa borom rek bàyyi sëñ ma Samba Diop Samb mii di borom bis bi ñuy waxtaan sëñ Touba daf ko musa woom ni ko Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko xanaa sopp nga ma sëñ ma sàmba ni ko lool mu ni ko ba booba ba booba wax jooju ni ki ma ko nettali foofu la yem ak man waaye sëñ ma sàmba Jóob da koo dëggal ci ay ci ci jëf dañu maa nettali ne ma sëñ sëñ Mor Xari Gajaga ku ne dégg na ko bokkoon na ci taalibe sëñ ma sàmba Jóob saam yi gën a mag pënc pësteef nga xam ne sëñ Massamba positifam demoon na ba yéem ko ba mu jël ci loxoom yóbbu ko njëriñ boole ko sëñ Tuubaa sëñ Mor Xari Gajaga dafa am muy dem di siyaari ji sëñ Tuubaa yaareel bi yoonam wax nañ ne bi mu ñëwee Daaru Salaam mu tàggu sëñ Massamba sëñ Massamba yëkkati addiyee jox ko ne ko siyaareel ma ko tedd Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ci war na la bëgg gi sëñ Tuubaa sëñ Massamba Diop sax bëggul sëñ Tuubaa bi mu demee ba ñëw wax nañ sëñ Mor Khady Gadiaga duggul këram dafa ñëw ci sëñ Massamba Diop Samb bi mu ñëwee sëñ Massamba woo ko ba mu ñëw mu ni ko ana ko tedd ka Xaadimu Rasuul mu ni ko ma lay nuyu sëñ Massamba ni ñokket diju ni ko ci loo ko fekk mu ni ko lan ko bàyyi woon Mbàkke mooy lan mu ni ko def doon tomb ay tomb di jàngale yàlla nee na yonent bi yonent bi nee na alxuraan nee na ma sàmba ni ko sëñ ma sàmba ni sëñ Mor Khary Gadiaga nu mu doon def sëñ Mor Khary Gadiaga Gadiaga fi kanam sëñ ma sàmba di tomb tomb yi sëñ Tuubaa doon tomb bi ñaar ni ko sëñ Tuubaa da doon naan lii naan tomb bii tomb bii sëñ ma sàmba jor sàmm ni wabee ñetti tomb yee seex ni ko ma barkeel kon xam ngeen ni kooku bëgg sëñ Tuubaa mënu ko weesu fekk naa ko muy tomb nu mu doon tomb yi nii la doon tombee ma barkeelu ci tomb yi nga tomb bëgg sëñ Tuubaa mënu ta weesu la kat bëgg sëñ moo ci maye sëñ mat Lamine Gaye firdaw si nee na sëñ tubaa bu doon jaay njëgg bëgg la kon nañ bëgg sëñ tubaa nañu doyoo sëñ tubaa te xool ci mag ñi nga xam ne nu dajale fii képp koo xam ne foo yëkkati sa mag doo rus ko ko gis waroon na fi barab di fa def lu di fa rusloo sa mag ne fi Dakaaru góor di rusloo sëñ Masamba nag mooy nekk ci loo xam ne ku la te seen xeer xerat la ndax ñoom de foo leen tudde dab kon fexeel ba yow itam fu ñu la séenee ci fu ñu la gisee di di ndam ci yow lu mel ñii nag am na solo lool ndax daayira boo xam ne liggéey sëñ sàmba ay at lañ koy def te liggéey bi boole zaahir ak baatin ku ne xam ne ne ndax ku ñu ngi tëgg ku tëgg ñu ku tëgg ñu la li sëñ Moodu di waxee kon nag tëggal rek te li nga tëgg tëgg ci galan bu jub loolu rek mooy lii tey itam bokk na ci ndonoy mag ñi li koy téye lu mel nii ndax jamono ju ne ak la fa yàllay wàcce ak na ko yàllay doxale ñu ngi ci jamonoy xumbeen jamonoy whatsapp jamonoy internet nga xam ne kenn ku tey yaa ngi xëcc la nga man yaa ngi yàq la nga man kon fexeel ba wanga wangal sa mbooloo la nga ko mën a wanga wangale rek ba téye ko yàlla xam booy daje di di def ay conférence def ko booy def ay journée def ko booy dajalee si toole bi di wut ay daayira def ko bul ni yàcc ne yàccaaral rek ni sama kër ga maa nga seet la kaaru defal kon lu mel ni am na lool ñu ngi jégalu bu baax a baax a baax dafa mel ne